bis bi nu jagleel jigéen ñi ci àdduna wërngal këpp ñu ngi koy célébrer fii ci biir Sénégal waaye nag ci département de Mbacké jigéen ñi di yëngu si wàllu politique nekk ci benn bokk yaakaar précisément ci biir APR nekk nag ci ginnaaw Lat jóg di jàppale président Macky Sall ñoom célébré nañ ko ci terre de verdure de Mbacké salle bi ndawoon loolu ngir accueillir jigéen ñi bàyyi ko fu nekk ci Touba ak ci mboolem gox goxaan nekk ci département bi seen njiit ci ajaratu jojo ñaan kaddu gi mu yëkkati mooy kàddu njukkal ginnaaw bi ñu jàppee ni seen leader moo sargal jigéen te nag ñoom ñii kenn demul ñu des. ñu ànd koog sunu leader muy Lat Diop mu xam ne nag jigéen ay yaayam rek mu fonk jigéen lool kon kooku ku ne xam na ne du toroxal jigéen waaw loolu mooy sabab bi ndax nag macha allah barki démb lañu def rey réunion jigéen ñi ñëpp macha allah. ñii ñëpp ma dar def seen réunion Adja Codé bii topp sama ginnaaw ñu fal ma présidente bu laat Diop te xam nañ ne man sutuma ci mënuma ci duma ci lenn. seen fidélité la ñu gën a wane seen ginnaaw leader bi di Lat Diop ndaxte mi ngi leen jàppale si wàllu financement formation accompagner leen si mbooleem événement. waaw loolu nag moom wax dëgg fa yàlla Lat dafa man nitam dafa mën nitam dëgg rek laay wax. ndax kenn ku nekk xam na ni man ci département bii ma nekk ah ñu bari xam nañu ma nekkatuma fii koo xamante ne dañ may làmbatoo ka laaj kon su ma wëlbatikoo man ànd ak Lat Diop ni ko ñàpp ñii ma àndal di ay gor ne ñàpp Lat Diop depuis bi depuis bi euh, wate yi jàllee ba naga kenn rënd wut kenn buuse wul ñu gëm suñu bopp toog di ko xaar xam nañ ne Lat Diop jàpp nañ Cheikh Pouy Di coordinateur des activités de Lat Diop ci Touba jàllale message wu Lat Diop. Lat Diop bu muy organiser lii dafa wax ne bu leen wax jigéenu Lat Diop ndax Lat Diop journée de la femme la le mars ñu jox ko jigéen ñi moom jigéen a ko jur kon jigéen bu ko jur du jigéenu APR du jigéenu PDS du jigéenu réew mi doomu Sénégal moo ko jur looloo tax mu ne. sargal bii nga xam ne maa ngi koy sargal jigéen ñi na ci jigéen ñi département bi yëpp bokk yem ci gis ci seen bopp te jàpp naa ne comité d'organisation bi noonu lañ ko doxalee. mu nekkoon jotaay bu am solo jigéen ñi nag gisante waxtaan seen diir ngir nag seen ëllëg gën a ñoŋ li lépp ñu koy sant ki nga xamante ni mooy directeur général bu LONASE di Lat